xale yi fii ci Sénégal donc euh, ñoo ngi rafetlu bu baax baax euh, en tout cas TYB, bi di remercier suñu partenaire ONG RABEC bi nga xam ne moom la ñu moom la journée bi tey muy journée internationale de la fille Madame Aduna bi yëpp tey la choisir le 11 octobre journée bi nga xam ne dañ koy jagleel donc xale jigéen parce que gis nañ ni soo demee partout ci Aduna bi xale jigéen yi seen droit dafa des donc moo système des Nations Unies ak état yi yëpp ñuy wu pour mën a jàppale xale ni yi pour mën a réclamer seen droit moo tax ñun tey tamit en tant que organisation buy liggéey ci loolu ñi woo vraiment presse bi woo suñu euh, xarit yi organisation yi ñuy liggéeyandoo pour vraiment ñu mën a célébrer cette journée bi. donc euh, fii Sénégal euh, état mu ngi def ay efforts yu bari pour jàppale xale jigéen yëpp ak xale yu góor yi ñu dem jàngi mais gis nañ ni ba tey lu bari dafa des. lu des mooy eh, tey xale yu jigéen yu bëri eh, dañuy bàyyi jàng parce que dañuy teel a ëmb ou bien dañ leen di teela a maye maanaam dañuy teel a am jëkkër te très souvent euh, ki nga xam ne vraiment soo ko teelee may jëkkër fekk mu ngi mu ngi mu ngi à l'âge de l'adolescence kooku bu amulee chance am jëkkër bi nga am na conscience ni qui war naa ko jàppale mu avancer day compliqué très souvent xale jigéen Nubari, binga ñi nga xam maïs nañ may euh, vraiment ñi am jëkkër day compliqué pour nyom, pour ñu mën continuer donc xale jigéen binga nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom ñu bëri dañuy wax ni euh, dañoo parce que dañ tele teel a maye am na ñenn ñu ne ñu ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo bàyyi parce que dañoo tele a ëmb donc tel un bébé bi nag fii Sénégal problème bu mag la xale jigéen ñu bëri ñu ngi jógee ci école yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi perdre opportunité parce que tout simplement xamuñu nan ni ñuy gérer seen mbaax parce que ñëpp xam nañ ni euh, gour comme jigéen soo demee ba am ye euh, yenn at donc euh, sa yaram day changer day am nu muy fonctionner donc tout le du doit faire tax xale yu jigéen yi Sénégal dañuy faral di am jafé jafé pour ñu won leen soo gisee mbaax noo koy gérer nous fonctionner nous def de telle sorte que tey de mes jàngi nga gis fa no mu né continuer sa jang te kenn du la sonal donc lolu muy ay jafé jafé yi nga xamné ñu ngi fi ci Sénégal donc ñun nak ñuy jéem a liggéey ak communauté yi jéem a liggéey ak délégué yi jéem a liggéey ak yeneen ONG yi pour que japp jappalé état Sénégal ci li nga xamné mu ngi koy def ci effort parce que encore une fois defuñu lenn li nga xam leneen li nga xamné c'est différence état lu mu bëgg té so démé état euh amna ay programme amna ay stratégie nga xamné amna ay engagement yi nga xamné ne daf ko jël au niveau international

parce que dañuy ne man est-ce que su ma jëlee congé de maternité maanaam su ma demee noppalu ji est-ce que duñu ma remplacer wala da ngay gis ay jigéen yi nga xam ne suñu demee pour entretien d'embauche maanaam pour su ñëwtu ji liggéey si entretien bi dañ leen ñu laaj ndax yow am nga jëkkër wala yow amoo jëkkër donc très souvent lu nekk derrière message boobu mooy dañu bëgg a xam ndax yow fi nga nekk nii di nga di nga da ngay da ngay laaj ay congé de maternité ou pas mais loolu dañu jàpp ni injustice la parce que boudé jigen, jigéen ñun ñëpp ay jigéen ñoo ñu jur jigéen bokk nañu société bi Yalla mo def ni jigéen moo mun am do moo mun am dom, góor mënul am dom. donc ñun suñu loi euh, vraiment suñ ko défaroulé pour ñu gën encadrer loolu pour que bépp jigen bi nga xam ne yaa ngi jàng am sa diplôme liggéey nga be vraiment am ay compétences yu baax So demee nek si ben entreprise So ëmbee nga mun dem tapato sa dom, comme yoon nu mu ko waxee également nga mënu noppal bu baax so ñëwaaté continuer à loolu am importance la parce que suñ ko dañuy nek société bi nga xamné nous yi ñoy des loolu Nous avons war nañ ko parce que changé. dafa changer bu Nous baax bu avons bi lañ daan wax loolu avons changé. Eh, bu si yi du Nous bi nga xam avons doolé la bu changé. bi ngay gis ñu na Nous eh, mala mais lepp lu ñuy changé. Nous

o mundo.